aleykum daleen ak jàmm mbokki internet yuy safoo di seetaan Buzz M TV mbokk yi comme ni ngeen ko dégloo noonu information yi mu nekk information yi nga xam ne leer na nañ bépp patriote war na déglu bile vidéo parce que leeral yi si xalaat TV leeral dafa leer nañ dina tax nga xam fi ngay teg sa tànk si prénance yi nga xam ne moo di ñëw maanaam nag teg deal bi nga xam ne bëgg nañ ko def ñii di patriote yi pour ngeen bàyyi si xel kii di xalaat TV def alert bu ama ama am solo kii di président Ousmane Sonko ba jamono jii ñuy wax ak yéen ak bokkam si élection yi leer na nañ maanaam muy diriger jamono jii nii waaw comme ni ko xalaat TV leerale moom moom mooy diriger. instant bi bu ko neexee sax maanaam mën nañ ne moom mooy tànn ñi nga xam ne nag moo leen di ne ak ñu mu pare parrainé kon patriotes yi effet yi seen loxo la des mu nekk information boo xam ne dañ ko bëggoon a jàllale waale rek di leen wax ngeen wéy di abonné si chaîne bi di partage vidéo yi di ko like jaa ngeen jëf